sawaay nit koo xam ne masta gagné élection quartier masta gagné élection département kooku boo ko joxee élection maanaam présidentielle bu Sénégal fu mu koy gagné donc bu leen leen may bay rek ngir yàlla rek dimbal leen ma ngir yàlla rek dee leen leen bàyyi ñuy continuer sol seen ay pantalon yu yëmbax ak seen ay semis yu yëmbax di am ay patrimoine cent milliards bu heure bi jotee lañ ci war a wax danañ ko ci wax billaay jàppale la ñu rek bu ñu sonal vraiment ci suba ba la gars yëg nga ki ñu tànn yëg naa ki ñu tànn mooy que masta gagné benn élection masta gagné quartier am masta gagné élection dëkkandoom masta gagné keneen voilà yow xaaral ma bloqué la Eliman Eliman xaaral ma ñëw bloqué la yow Eliman voilà waxoon naa la léegi ne dinaa la bloqué voilà Eli voilà Eli suspend voilà suspendre naa la voilà yow bloqué naa la jeex na nee naa leen bu fi benn doomu aadama tudd ab tur nit ku tekkiwul dara bu ko fi benn aadama tudd voilà bu leen ko fi tudd ne le nommez pas ici bu leen ko fi tudd Ousmane Sonko la ñu wax ñun ñoom yàlla moo nekk di leen déstabiliser bàyyi leen leen ñu rey seen biir ak kii tudd beneen tur bi tamit Aliou Diallo bàyyil yow it ma bloqué la xaaral ma bloqué Aliou Diallo ñi tudd tur yëpp danaa leen bloqué sàlla voilà benn voilà dama diggee diggee bor la ku fi dugg rek tudd tur boobu ma bloqué parce que il faut tamit ñu am raison garder il faut ngeen xam ne suñu gémmiñ ñi dañu dañu barkeel suñu gémmiñ ñi dañu barkeel suñu gémmiñ yi daf dañu barkeel du ku nekk lañu ñu war a tudd déedéet déedéet des vauriens qui ne peuvent même pas gagner leur quartier là où ils habitent boo leen leen tuddee da ngeen leen di may barke voilà am na patrimoine bu duufa duufa duufa duufa duuf bu waxtu bi jotee dinañ ko wax ndax mënuloo sàcc suñu ay milliards ay milliards yi milliards yi milliards nga ñëw di ko partager ay nit pour yow ñoo ñu ñëw après di la woteel ci ay élections loolu mënta nekk ci voles nos milliards di nous dis où tu as reçu ces milliards ay patrimoine milliards yu bare bare bare bare la am loolu xam nañ ko mais duñ ko tudd li fi important tey ma bëgg koo yëgal sénégalais yi mooy le président Ousmane Sonko est toujours séquestré loolu laa ko mën a tuddee emprisonné injustement par Macky Sall. Et la diaspora est invitée, celle de l'Europe, celle de l'Amérique, celle de l'Asie, et partout dans le monde est invitée pour que Macky Sall bu fi ñëwee bi yoon ñu fexe ba moom mu xaru loolu mooy suñu liggéey waat nañ ko giñ nañ ko ci yonent bu tedd bi waat ko ci yàlla ne Macky Sall ñu ngi koy xaar Amérique pour ñu won ko lu mu mës gis ba mu juddoo ak léegi loolu rek mooñu ñu leneen li yëpp intéressé wuñu tout cela ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse nous c'est de faire quitter Macky Sall ce pouvoir te sénégalais yi yéen ñëpp ñu ngi leen bëgg a yëgal ne tous les permis sont faits permis yëpp am nañ ko tous les préparations sont faites lépp lu ñu war a def def nañ ko ba pare incha allahu rabbi yan la ñuy xaar pour ngeen ñëw focus bi Ousmane Sonko la le focus c'est Ousmane Sonko buñ leen may xorom maa ngi leen bi ñaan bu leen leen may xorom parce que yéen ñëpp doole bi ngeen am tey jël leen foto ay photo wu Sonko ngeen profiler ko ñu sonkoriser le Sénégal en en le démaquillant on a son, on n'a qu'à soncoriser le Sénégal en le démaquillant mais il ne faut pas ñu tudd ay turu nit yu tekkiwul dara di leen may bayre ñoom tànn nañ seen candidat ñun buñ ko tuddu ñu xool ñaata bayre lay am ne ne ne dites pas le nom bu leen tudd seen candidat bu leen ko posté bu leen ko waxtaane ñu xam niñ ko ñàkkalee xorom parce que sondage la xam nga ñoom tànn nañ seen candidat ñun bu ñu tuddul candidat bi faalewuñu ko kenn faalewu ko réseau bi yëngatuwul kenn lijjantiwu ko xam nga lan mooy xew ñoom ci seen bopp dinañu xam ne ñàkk nañu ay élection laataa élection yi di tàmbali bu leen ko tudd ne dites pas son bu leen ko tuddu ne le partagez pas na parlez pas de lui bu leen wax ci moom bu leen ko partager bu ko laal bu leen ko tudd bu leen ko faale non parce que boo leen ko tuddul le problème qu'ils auront ils sauront que ndeysaan waa ji ndeke kenn xoromalu ko kenn xoromalu ko mel leen ni saa neex la ñu tànn candidat présidentiel saa neex parce que ñoom ils sont dans des théâtres parce que ay nit yoo xam ne ñoom xam nañu ne ki ñu tànn masul gagné quartier kooku lu tax ngeen koy tudd ne parlez pas de lui yéen ñëpp profil leen Sonko yan ñëpp wax leen ci président Ousmane Sonko parlons de président Ousmane Sonko ne parlons pas des personnes euh, papa Ibrahim rus naa la sinon j'allais te bloquer voilà ok voilà jéggal leen ma rek bugguma woon bugguma dimbali ma rek maa ngi effacé sa duma la suspendre rek parce que xam naa ne peut-être yëguloo li ma wax mais damay effacer sa commentaire bi ok voilà ñun Ousmane Sonko la ñuy tudd Ousmane Sonko seulement ne parlez pas de lui le gars là ne bu élection amoon marché Sandaga mënu koo gagner donc bu leen ko tudd dimbali leen ma rek fay na média sénégalais yi bàyyil ñoo ñu tuddal ko bàyyi leen Maïmouna Ndour corrompu ak ñeneen ñi ñu tudd ko parce que ñoom c'est des corrompus Maïmouna nduur ñoom lay liggéeyal bokk na ci ñi nga xam ne dossier Prodac bi moom def ci bokk may Maïmouna Ndour xaalisu Prodac bi ñu luubal moom telem bi ci lañ ko ubbi bu ko benn doomu aadama tudd la gars a un patrimoine deux milliards bu mu sàcc donc télé Sénégal yëpp dina am lu mu leen jox voilà bu ko kenn tudd nag kenn bu ko kenn tudd bu ma ko benn doomu aadama tuddal dimbali leen ñu rek fi mu toll nii tuddal leen ma marche bi war a am New York bi nga xam ne Macky Sall bu ñëwee fii Amérique te Ousmane Sonko ngi ci kase Sénégal yi nañu fexe moom mu nekk ci kaso fii na am vie bu gën a misérable ba mu masta am bi mu juddoo ak ci ndeyam ak baayam ba léegi loolu moo ñu intéressé nous on est on attend Macky Sall aux États-Unis aéroport lañ koy gàttanloo ba ci otelam di ko gunge ci dëkk bi di dal ci kawam di ko gunge ci Amérique di dal ci kawam gunge ko Nations Unies dal ci kawam siiwal ko ba adduna bi yëpp xam genre délinquant bi mu doon c'est tout Ousseynou Diez maa ngi lay bloqué yow defe naa li nga nekk yaa ko tey tur yooyu kenn du ko tudd fii voilà duñ fi tudd ay tur on par parle pas des délinquants ici voilà kii ma kii dama koy effacer rek dama lay effacer yow voilà delete comment duma la voilà voilà soxlawuñu soxlawuñu fi benn doomu aadama buñ fiy tudd soxlawuñu ko Ousmane Sonko rek Ousmane Sonko képp lañ fi tudd voilà moom la ñuy préparé faale wuñu leen ak ki ñu tànn ak ki ñu tànnul oh yow doo tëj kenn billaay wallaay dinañu tëj kenn gis nga fii fii du Sénégal de ne ay nit duñu marche ay nit duñu protester ay nit duñu wax seen président bu fi ñëwee bi yoon dina gis lu mu mësta gis bi ko yàlla sàkkee ak léegi man maa la promettre loolu Macky Sall bu fi ñëwee bu ñibbee Sénégal bi yoon dafay xaru dafay jël comprimé ci avion ba lay xaroo loolu ñun mën nañ leen koo garantiral dinañ leen humilier humiliation boo xam ne ba ngeen juddoo ba léegi mosu leen ko gis à Caïsfof mu ne hier Caïsfof a fait un très bon travail macha allah c'est son devoir voilà Caïsfof moom daanaka moom ci bon travail la dëkk. voilà ñoom ñëpp nag tous les patriotes il font un travail extraordinaire kenn ku nekk il le fait de sa façon kenn ku nekk voilà kenn ku nekk li mu war a def mi ngi koy def de sa façon ñun Ousmane Sonko mooy suñu candidat. Ousmane Sonko moo ñu intéressé ay waxu Ousmane Sonko la ñuy wax ñii nga xam ne dañoo luubal alalu réew mi yaakaar nañoo mën nañu mën a yoraat réew mi ñu ngi leen di xaar amul problème seen heure jotagul waaye fi mu ne nii ba Macky Sall di ñëw Amérique ba di ñibbi Sénégal te du ñibbi ci jàmm ak terrorise bi nga terroriser bi nga xam ne moom lañ koy terroriser fii ci Amérique ñun ñu ngi réserver loolu incha allahu rabbi ka nga xam ne moom mooy le président Ousmane Sonko bu soobee yàlla waaw président Ousmane Sonko rek mooy suñu candidat moom moo ñu intéressé moom moo intéressé sénégalais yi nañu dem ñu sonkoriser bépp place boo xam ne Macky Sall dina fa jaar wala ñoñoom en démaquillant Macky Sall nous sonkorisons le Sénégal en le démaquillant dañuy sonkoriser Sénégal waaye dañ koy démaquiller incha allahu rabbi yan sénégalais yi concentré wu leen focus focus sur le président Ousmane Sonko képp yeneen yi yëpp intéressé wuñ xam ngeen dëkk bi ñun on est des sénégalais lii suñu wax ji xarit bi wax démb Clédor seen te ñu dégg ko te àdduna bi yëpp dégg ko ñun xam nañu ko ñun xam nañu xam nañu li xew Sénégal on sait ce qui se passe chez xam nañu liñ fa war a def xam nañu liñ fa war a def on sait ce que nous devons faire chez nous moo ñu intéressé beneen doomu aadama ak ay caaxaanam intéressé wuñ du ñu wax ci kenn yéen a tànn seen candidat publicité leen ko wax leen ci moom ñun benn sénégalais incha allahu rabbi moo ñu intéressé when the Senegalese president will arrive in New York Macky Sall will be in New York from the 17th we're gonna start our fight ñoom xam naa between the 18 and the 21st lay ñëw moom but we're gonna start our fight on the 17th the 18th the 19th the 20th and the 21st the two days that we have that are highlighted is the 18th and the 19th. And we will start the protest at 10 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. dañuy yendu voilà 10 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. We're going to make this country very, very, very miserable for Macky Sall. incha allahu rabbi donc ñuy ñaan doomu sénégalais yéen ñëpp ngeen ñëw en masse yéen ñëpp nag xam ngeen wax naa ba pare tudduma fi benn tur dégg ngeen ma wax naa ba pare tudduma fi benn tur turu Ousmane Sonko képp moo ñu intéressé on n'a qu'à no les noms des des individus qui ne sont pas ñoo xam ne amuñu benn mérite ci Sénégal incha allahu rabbi bu leen tudd seen tur de ota xaale indeele man indaale man buñ fi tudd turu benn doomu aadama boo xam ne amul benn taxawaay ci Sénégal un voleur ki a volé tout nos milliards avec un patrimoine de cent milliards xam nga dañu doon jooy ci Macky Sall ñun dañu doon jooy ci Macky Sall Macky bi muy ñëw présidence xam nga daf ñu ne Ablaye Wade moo ko may sept milliards ki Macky Sall tànn détourné na plus de cent milliards de nos francs il a un patrimoine de plus de cent milliards un fonctionnaire d'État kooku xam ngeen ne ñun duñ ko jox suñu réew donc tudd turam sax perte temps waaye buñ ci yeggee liñ ci war a def yëpp dinañ ko def maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.